ginnaaw bu nu santaatee sunu borom subhanahu wa taala julli ci xayri xalqihi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukkal xayri xadimi yi cheikhuna cheikh ahmad bamba xaadim rasul bokk yi leen di nuyu baax leen jaar leen ñaanal jàmm ak tawféex noo ngi ci dëkk bu sell bu tedd bii dëkk bi nga xamante ni mooy dëkk borom daarul moxti muy daarul moxti fas yéene amal waxtaan wu am solo seq kooku ay boromi xam-xam yoo xam ni miin nañ leen lool ci yoon wi xam ni ko baaxoo di waxe e, tànn ñu leen rek ngir dañoo bokk ci waa Daaru Muxti waaye dañ leen a tànn ngir xam-xam bu sell boo xam ni dañ koy balaloo fu wér te waxtu wu nekk nu gis lépp loo xam ne xew-xew diine la wala xew-xew bu aju ci yoon wi ñu gis ni ñoom danañ ci indi ay thèmes yu am solo loola waral ñu dara leen man ak sama naataango. Serigne Cheikhouna Joxaane ñu ngeen ko xama waxtu nekk nuy ànd ci émission yi am solo yi ñu dalal nag tey Serigne Ahmadou Mbacke moom Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Cheikh Faty Fall moom borom Darou Mouhty waaye muy borom xam-xam di gëstukat waaye daal jàngalekat dëkk fii ci dëkk bu tedd bu sedd bii ñu ngi koy ñaanal sunu borom defal ko tawfiix bu baax. ba li nga xamni mom lañ fas sobu sunu borom yombalal nako bu baaxa baax ba yene dina ci am ñu am ñu def ci lu kawe njort kon dañuy jox serigne Ahmadou mbake rek bu ko defé momit mu daal di nuyu bokk téléspectateur yi serigne Ahmad bisimilah aoudu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وغير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نورا وقلبي أرشدا آه، sëriñ Koso maa لي lay ziar sëñ Cheikh بي Bay di ziar itam mboolem ñi nga xam ne ñu ngi nuy topp ak dinu seetaan di ñaan yàlla mu defal nu tawféex ci li ñuy waaje waxtaane muy jikko yi nga xam ne ak melo yu sell yi nga xam ne moom lu borom Darou Mouhty làmboo woon te kenn ku ne war ngir secteur bi gën a ñoŋ ngir sa dox gën a jag ngir nga mën a gën a jege njubug sëriñ ba ci daraja sëriñ bi noonu ci ñaan yàlla defal na ci tawféex insha allahu taala Euh, kon sëñ Ahmadou dama lay bàyyi rek nga daal dugg mu basaratan euh, ci waxtaan wi incha allah. waaw jërëjëf sëriñ Koso boroom Daaru Muxti de roywaay bu mag la. Mhm. ci bépp jullit ak bépp murit mhm. ndax dafa dafa jëmmal njàngalem sëriñ bi. Mhm. sëñ Tuubaa ci boobu moo ko tëzki yàlla boppam danay wax ni borom Daaru Muxti moom dafa am lu jafe. ndax sëñ Tuubaa Cheikh Abdoul Khoudoss mi dana wax ne du waxe bakkan. te lu mu wax rek mooy la am du def li wax mujaamala du ko def kenn te ma wax ne lam yu xaalif nii fi sigharihi wala fi kibarihi mooy mësta wuuteeg man ci lenn ba ca la dala ceg ndawam ba ak magam nga xam ne kon léppam daa dëppoog sëriñ bi sëriñ Tuubaa ku ne xam na ne dafa doy dafa roy rasulullahi sallallahu alayhi qalban wa qalban. Hmm. nim ko waxe hmm. laysat li al yawma xaajaatun uammiluha siwa iktifaaika qafwal hmm. qalbi wal badani xane roy sunna sunna tabi sallallahu alaihi wasallam sallam ko jema jemal ci doxinam ak ci cëram ak ci melom ak ba ci toginam ak leppam ci zahiran wa batin am na ñoo xamni sunna ci kaw kaw li lañu roy waye suñ mën la ci bolé manam xafwal qalbi sunna si xol bi def jikko ak melay nga xamni mom la rasulullah meloo woon mu fexe ba jëmbal ko ci boppam ak ci jëmm jëmbat ko itam ci xolam loolu moo ko def mu doon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ci bari doon koo xam ne kenn mësu fa ca fam ca ak borom daalu mat itam la mel ci bi dafa duppi sëriñ bi suñ tubaa moo nga doy na ko rek suñ tubaa yaral ko ko na ne ñu jàngum alxuraanam ñenn at rek ca mos a génn loxo sëñ bi mm-hmm. lépp sëñ bi te jàngum xam-xam itam am yu ci génn loxo sëñ bi waaye di des lépp sëñ bi ko mm-hmm. ba sëñ Moussa Ka daa wax ne Bamba ko mm-hmm. moom li wax tër ci bëri Bamba ko jàngal alxuraan xam-xam jàng la boole moom am bi yaral ko boppam tër bi yaral ko boppam tax koog moom ci jamono yi nga xam nag am na jot leen tërbiya mhm. xam nga sëñ bi ci mujj gi ku ma saa ñëw ci moom daa xam ne tërbiya taxaw la laaj te mhm. ñu mhm. yooyu nga xam ne nag moom daa am jotu tërbiya te rasul lay digal ko ko mu ci ah, doxe positif ak pas-pas bu kawe jamono yooyu nag la taxaw woon ko mbar ma wala mbar ma moom daa feeñ rek dugg ci loxoy sëriñ bi moo tax sëriñ bi def ko mu mel nam bëgg ak murit mel nam bëgg eh, ku na mel yàlla bëgg ko yónente bi bëgg ko na maa dégg mu nekk li naaru gànnaar boo xam daa mas a ñëw ci sëñ bi te jaar fu bari ci këri murid yi <laughs> waaye ba mu demee sëñ bi wax na ko ne ko ba mu ko waxee ne jaar naa ca borom Daaru Muxti Cheikh Ibrahima Fassi nee na sëriñ bu mag ba ko wax ne ko kookee de la ne ca moom lépp maa ko defal lu la ca neex man a lu la ca naqari man ne satale yi ngay defar loolu kuy defar ay satale mu yi nga xam ne bu ci ne yaa ko di def <laughs> kookee noonu la mel ci man kon sëñ bi da ko waajalal boppam bu dee nag nun li ñu mën a roy ci moom bari na mm-hmm. la ci jiitu mooy jëfe ndigal bàyyi tere mm-hmm. borom dal moxti mësula yëngal dara lu may ci kaw ndigal la ko def mm-hmm. fu mu mas a fanaan ndigalul sëriñ bee ko fa mas yenn ndigalul sëriñ bee ko fa fonk xam-xam ak jàng kook jàngale ko loolu yi diiru dundam yëpp ca la ko def danañ ci ñëw xam naa ci lu gën a yaatu sëriñ bee ko digaloon jaamu yàlla loolu it ba tey def na ci ba def ci lu lu kawe mm-hmm. ci ngoy ci yi nga xam ne mooy bañ maanaam moytu yomb-yomb yi mm-hmm. ak ngoy ci yi nga xam ne mooy alxasaayim mm-hmm. yi nga xam ne sax yàlla tegula ko diine ji tegula ko waaye pas-pasam ak pëstéefam moo tax mu di ko def ci misaal rek fii ci dëkk yi ba mu fi ne wax nañ ne dawul nangu ku dugg ci jàkka ji te jàppoo moom ci boppam dund na lu jege juróom-ñett fukki te mësula tiim lu may ñaari yoon te wecc na bi mu amee ndox da ko faj mm-hmm. nga tiim wecci na njàpp mm-hmm. boo mm-hmm. waaye bi mu amee ndox da ko fayaat xam nga loolu tegu ko waaye ngoyam ci eh, eh, maanaam ponk lislaam yi ak dëgër ci azaim bi moo ko jural ku mënoon a yëg boppam la mm-hmm. ndax ku rëy daraja la mm-hmm. ku kawe fa suñu borom lay tam mm-hmm. waaye dafa wàccoon ba tolloog nit ñi dëkk bi bu masaane wax na ne bëccëg bi dadaa génn waaye bu génnee ci suuf lay toog mësta toog ci kaw romb jaan dañ ko ci suuf lay toog waaye mësta toog ci kaw Euh, sëñ Baata Dieng dafa xam ne ku mas a ñëw mhm. ak foo jóge mhm. mu dal di lay nangoo jege mhm. dal leen wutal tool bu tool bu jege naa la dëkkal fii bayu la noo mën a melit du la ñaaj te loo amit du la laaj te ku ko tooñ mu daaj la xamal la yàlla sàmm la foo mën a jóge jóge rek ak noo mën a mel dana la ñimeel boppam ubbil la boppam ba nga mën a jaxasoo moom noo mën a toll itam du la xeeb te dina la yëkkati ba nga tolloog moom mm-hmm. wala mu wàcce ba moom ba toll mën a jëflante mm-hmm. loolu euh, mboolem mag ñi ko xam ñëpp loolu lañ ko seeral te mm-hmm. Ibrahima Jóol Masaari yi wax na ne wa yaxfidu lil muridi janaha dullin min arrahmani min duuni ixtilaati nee na moom dafa wàcce boppam ba tolloog ñëpp moo tax nag murid yi bëgg ko mu nga si murid yi bëgg ko fi ne kër goo dugg rek boo seetloo dana fa amul turandoo maanaam kër yu mag yi boo ko doon seetlu foo ci dugg rek da nga fa gis turandoo borom Daaru Muxti wala ku ñu tudde ku ñu ko tudde mhm. wala lu bokk ci moom lu fa ne wala lu demee jaxasoo boobu yi nag dem ak borom daal moo tax fii la ko fekk daa gën a fi noonu lay itam noonu mm-hmm. sëñ Abdou gis nañ moom tudde na ko ci ak njabootam mm-hmm. ak eh, Diouf mm-hmm. Mbacke ma xam ne moom la ko tudde loolu nag jaxasoo boobu ma wax ak woyof googu yi mu àndaloon nga mm-hmm. xam ne a jaxasoo ñëpp mm-hmm. mën a jëflanteeg ñëpp mm-hmm. te kenn ku ne itam mu ubbil la boppam na la ne dama laa def ni sa bopp ni sama bopp li mu bëgg mu bëggal ko ñëpp loolu moo ko mayoon la bokk na ci ay meloom yi ci gën a fees itam mooy ku dëddu adduna woon itam yu ne moom dawul tëju ana jaamu yàlla wéet ngir jaamu yàlla rek moo ko daa tax tëju waaye tëju ni ko yenn kilifa yi def bu bari daw daw ko moom bu ma saa ñëw fii da ko daa fekk léeg-léeg ci pénc mi nga ko fekk mhm. fu mu toogee nag du day yor jukkee di jàng mhm. ci cëg bi ñaar fukki isi bi alxuraan la daa jàng bis bu nekk sulu sul alxuraan la daa jàng mhm. te loolu mooy kaamil bi nga xam ne moom lay jàng muy waqfam bokkut ak kaamil bi muy bi muy naafila te am na ñu wax sax anda yang ci tëdd itu di cikau ablan. ci ay dar ak dëppi ci la daa Ibrahim fi Ayamil xarida Sehingga Bachir Anta ña ngàttali ko nee na sëñ Modou bi mu ko defaree sonn ca lool bi mu ñëwee di ko seeti fekk boobu kon noonu la meloon ci dëddu àdduna ak woyofal ko euh, nekkoon ku mën a muñ itam. Uh-huh. maanaam borom dal mooti euh, jaar na ci ay jaar-jaar ak ay coono yoo xam ni muñ di Jolof te ni ngeen ko xamee sëñ bi moom moo ma fu mu mën a nekk njaboot gi rek ma nekk fa ak ñoom du ko noonu loolu ma fi jóge waaye nag bala nu fay jógee itam mbay mi daa daa daa dafa dafa daanu ndax boobu daa mel ne jël benn nawet te dafa sëñ bi jógee wax na ne ba ko waaj a xuppee ba wax ko ne ko na fi jële njaboot gi mbaa kii mu ne leen mbaa ñu taal kër gi ak yéen demee da ko wax ne ko loolu de bu ngeen koy def sama néew ngeen di jaar xam ne noonu la meloon eh, ginnaaw la fa jógee ñëw Mbàkke ba Mbàkke Mbàkke ak fu ñuy wax guy ngóora guy ngóora ginnaaw ba la la ci darul mën ci digalu sëriñ bi mm-hmm. te darul mën naan ba fa nekkee gis nga fa lañ rek sàmm si mm-hmm. te loolu mel na sax ginnaaw ginnaaw bi sëñ bi ñëwee la moom. Mm. ba mu ba mu gànnaar. waaye mm. jamono yi mu joteeg sàmm si nga xam ne dongaam yi. Mm. ay dongaam. taalibe yi ñoo joteeg sàmm si. gis nga dañ leen a kalaame jàpp jàpp ay jëwriñam wax na ca mooma at la ñu kalaame cerno te jëwriñam ya muy lay gouvernement loolu lépp nag muñ gu rafet la ko la ko la ko muñ mm-hmm. jaar jaare yu xam-xam yooyu nga xam ne mm-hmm. lu ne rek daj na ko mm-hmm. te da ko muñ muñ gu sell muñ gu rafet loolu yi mën nañ ko tàmbalee ci. melu mhm. borom daal moo tax sëriñ mhm. eh, eh, Ahmadou Mbacké eh, macha allah ci noonu nga xam ne noonu la indi borom Daarul Muxti ci yooyu nga xam ni moom lañ war a roy ci moom muy ay jikko yu am solo. Mhm. kon sëriñ bi dama lay jox rek nga daal di sof fi nga xamante ne fi nga yaman incha allahu taala ci maam Thierno Ibrahima Fati Namouze. Ah, jërëjëf. Bousso sëñ Mbaye gi si la moom mënoon nañ ko jox rek waxtaan ndax borom daal moo ti dajee moom mooy mooy maanaam mooy li mm-hmm. spécialiste mm-hmm. Eh, borom daal moo nag mm-hmm. mën nañ ne eh, royuwaay la ci wàll yëpp rawatina nag taxawaayu sëriñ ci biir mbooloo mi lu bari dañ koy fàtte waaye sëriñ Sëriñ Tuubaa da jàngale yoon woo xam ni wuti naag moo yem bi fekkoon te mooy jaamu yàlla gi wetu sa digg sa borom dara wër wëru caa des suñu jaw a sa kem kàttan waaye sa digg ak nit ñi itam am na loolu ci yàlla loolu ci yàlla sax loolee nag borom Daaru Muxti taxawoon na ca taxawaay boo xam ni bu rëy la la ci jiitu mooy ni mu fonke woon liggéey nga xam ne sëñ Mbay wax na ko léegi mm-hmm. mosula nongu mm-hmm. euh, borom kattan gu nangu la liggéey. Mm-hmm. wala ab yaafus. Mm-hmm. wala toog loxoy neen loolu mosu ko nangu moom. Mm-hmm. loolu mosu ko nangu. daw dem ci loolu wax nañ léegi ne. bu ma sa ñëw sax dana la wutalu tool. wutal la looy yëngoo. Eh, wax nañ ne am na mbokkam mu ko mas a gane si. doon sàkku ci moom ndigal. doon sàkku ci moom ndimbal. mu téye ko fi fekk boobu jamono jeexaat la. waaye mu wax ne lépp lu nga xam ne borom daal motu mosaa xëy di dem ci tool yi mm. wax ne sax ne bu masaa dem ci tool yi léeg-léeg gopp yi muy yóbbaale mm. ak liggéeyukaay yi da ciy yóbbaale lu ëpp lañuy la ñuy liggéey bi yor mm. moom nag bu demee toog kooku fa fekk bu la rusul moom da wax ne jëlal gopp bi nga dem ci liggéey bi <laughs> bu la rusee nag moom joom day jël gopp bi bu ko dee nga ne ah sëñ bi nag liggéey bi te nga bàyyi mu la koy tax nga dem <laughs> loolu wax nañu sëñ boobee nag ba mu ñëwee ba bu fekkee ab diir wax nañ ci ànd ak moom di dem ca ca tool ya ñuy jeexaat mu wax nag ne lu mu ci jeexaat rek nañ ko ko dencal yàlla dogal ba mu demee bay tàggoo borom dara mu jox ko lu am solo loo xam ne faj na soxlaam lam doon bëgg lépp am na ko ca ba muy sant nag mu ne ko moo ne loolu de yaa ko fi mooy li nga doon jeexaat rek moom lañ ko dencal lam bi jot a jeexaat moom lañ ko jox xaymaal ko jox ko moom mu faj aajo war na ko ne yow am nga métier ne kooku war na ko ne yow am nga métier. Mm. da nga liggéey rek waaye amoon na mm. doguma la sëñ am sëñ bi am na kook moom. ba mu ñëwee dafa fekk borom daru muy jaxaat. mu mm. ngi rëy ci moom loolu daal di dem li waaw lu toll ni ceer na ma fekk ko muy jaxaat daal dina dox ba mu ñëw di ko di mu fajal ko ko ne ko loolu da ci sama jaxaat ma a jóg. dama leen doon wanu yoon rek. Mm. loolu moo ko tàmbali métier bi. bu mm. njëkk a tàmbalee tëgg. Mm. wax na ne moom sax ay ay ñàkk maanaam fa mu woon ay kilifaam dañ ko topp si. waaye da ko jaral mu wax ñoom. ba jox leen lu sedd seen xol ñu bàyyi ko ko. jamono jamono yooyu waaye ngir dëkk bi am mboolem yi mu soxla ci dëkk am fi buus maa ñi lu nekk day day am fi mm. mi ngoog kon noonu la noonu la demee woon bëggoon jàmbaar genn guddi suñu bési anta ñi wax ne daanañ ci boole lu mat fukki nit la ca war lépp moo ko def loolu nag jéegu bu boo xam dayre yi ñu am ni fi ne taxawaay yooyu war nañ ko mën mm-hmm. Mm-hmm. bari na gis mm-hmm. yu am ci biir société bi te ndaw loo xam ni toll na ci war a am kër moo ko ñëw ne nag borom daal mooy li mu ko daa saafara ci dëkk bi mooy daanaka boole genn guddi boole fukki nit wutal leen soxna bu la ci dem la cee dem lépp moo ko moo koy def daana taxaw itam ci kanam yàqu-yàqu yi ñëw ci biir nit ñi mën nañ cee joxe misaal sëñ Bassirou ànd nag li mu nettali ne dafa am mbokk mbokk mag ñu masa toog ci wetam di nettali am ku ci ne sëriñ de moom xanaa mooy moom lu mu la dëggal rek nga def bul seet moom bul xalaat daal nee na waaye ba mu ko déggee dana leen dee du noonu de sëriñ dey lu mu la digal da nga koy natt ci àndaari sharia nga def bu dëppwut ak moom nag nga jëfandikoo la yonente boo xam ne laa taaata li maxluqi fi maasiyatil xaaliqi mm-hmm. laa taaata lil maxluqi fi maasiyatil mm-hmm. maanaam bindeef kenn du ko topp ci mooy yàlla mm-hmm. kon noonu ñu doon ci biir société bi nekk koo xam ni li ma ko waxee ilimaan la joo xam ne daa wàcc ba tolloog nit ñi mm-hmm. te itam adduna itam bëgg ko woon mm-hmm. ab am am itam ma ragalu toll na ak ñàkk mm-hmm. monsieur Sow na yoo xam ne ñun daana wax ne sama digg ak sëriñ bi am na yu fi dox yoo xam ne bu ma adduna rek ñoroon mën naa ci am lu jeex kon loolu moo doon ay jikkoom te kon ku sell ku am jikko yu rafet ndax ku ne xam ne ne jikko ci la ñu rawante ci la ñu rawante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da wax ne mm-hmm. akmalul mu'minina imaanan mm-hmm. ahasinuhum axlaaqan mm-hmm. maanaam aqrabukum minni majlisan yawmal qiyaama itam ahasinukum axlaaqan maanaam ñi koy gën a jege yonent bi mooy ñi ëpp ñi a rafet jikko ku la gën a rafet jikko rek moo la gën a jege moo la gën a ëpp lu mu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ko suñu borom tagg ko jaamu yàlla julli yu bari wa innaka la ala xuluqin azim suñ tubaay itam ci jikko jooju la ko la ko la ko la ko kii moo tax boo gisee sëñ mbay sëñ Moussa Ka mi ko doon tagg ñëpp ci loolu lañ ko tagge xolom bu jë xolom bu ba tabeem nga ak dëddu gaa jàmbaar ga ak yaaram ga ak sàmm ga ak maandu ga ak doyloom ga muñam ga ak wëkkirlu ga ak wóoloom ga mësula sopp adduna ak dagam ya seytaane bànne ak bakkan mbokkam ya ak jaxasoo du ko teree ibaada ndax toujours itam mi ngi ci jàmm ya ku kawe la woon itam dafa yu kawe ci la nekkoon tey dafa nekkoon doon dund ko waxee ne nit gane na adduna mu ne alhamdulillah جن ابن من الحمد لله قائلا هاك حيث يسمع هادي حمل الشيخ يبرا حملا ثقيلا من خصال الخديم خير الثقات nee na Ibra Faty moom dafay yilimaan joo xam ne di xawsu boo xam ne dafa nuróog sëriñ bi ci jëmmam ak ci meloom nee na itam dafa daf yitteem muy xeeñtu sëñ bi suba ak ngoon yitteem njënd la mooy xeeñtu njurum sëriñ bi ak yoonu sëñ bi ak melo sëñ bi ak doxinu sëñ bi doon na ko itam ci tabe sëñ Mbay doon waxee mm. loolu mu doon fàggu lépp ci euh, liggéey boobu mu doon liggéey mm-hmm. sëñ bi diggal ko ko mm-hmm. da ci doon fàggoo sëriñ bi ak itam di ci dimbali doomu aadama yi mm-hmm. na naaru gànnaar boo xam ne loolu la ne Cheikh Ibrahimu laa yatawaara an dayfihi abadan wala yatamaara mooy jëmm joo xam gan du ñëw mukk mu lay làqu naan la dugg fi wala mënul nag nee na moom laa yatawaara an day bi abadan wala yatamaara du werante itam mhm. nee na fu mu toog itam wax wax yami wax yëpp wax ju baax lay doon ju rafet ak waxu yiw mhm. waaye ab safaan neen du ko wax moo tax teg ce ne mutafaridun bi saxaa'ihi wa dakaa'ihi wa wa uraahu laysa yubaara nee mhm. na maanu tabe ak ñaw xam-xam moom yooyu mu nee da ca wét mutafaridun bi saxaa'ihi wa dakaa'ihi wa ulmihi wa uraahu la sey bara dana dem Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké bi mu ñëwee ci moom ay jamono loolu la ko seeral adib ilal miatai fi daarihi lmoti li yuske sakwal qabd min niye bil bas xam ne boobu doo xam ne bi nga xam ne tabla nga xam ne xamidil xisaali tabitil jë bu gisee am na biñ ko denc bi nga xam ne jógee na fi làqu na bañ denc ko am naatu gànnaar boo xam ne wax ne fa dafa nu xayra jawaadin moti ana gaa ji suul nañ abat mën nañ ko xam ni joxe rek <laughs> mënoon kon loolu mu doon fàggu lépp fàggoo ko sëriñ bi la woon mhm. ak itam eh, maanaam dimbalee ko doomu aadama yi mhm. ak noonu nga wax mhm. bëgg moom boppam gore ci diggam ak boromam ndax li la wax ne ku la la te ku la na lay kala waa kala war a na ko gore woon la ngor ci moom sax da koo neexoon mm-hmm. wax ne ngor ak diine moom lay ñaan suñu borom mm-hmm. waaye bu ci benn nare manqué na doon diine ji ndax ndax ngor nong na loo xam ni mm-hmm. maanaam diine nong na yoo xam ne ngor nangu da ko nangu te ngor nangu dañ ko misaal ci sa xaritu benn bakkan wàcc fi soxna kooku diine may na da nga jël ko waaye ngor la ko may moo tax ku gore la woon ku noppi la woon itam fi ne diggam ak eh, tubaab yeeg mm-hmm. ak biir yoon weeg mm-hmm. gis nga lu ne xaw na fi mm-hmm. waaye kenn mosu ko dégg mu yëkkati maanaam kàddu wasbir ala loolu moom da ko da da ko jëfe ci wax ne ŋàññ yi yow ko na ko na ko fayoo muñ te bul tontu moom da ko ko jëfe moom ko jëfandikoo bu wér wér bokk na ci li nga xam ne war nañ mën ko ko roy itam mooy dafa dafay bàyyi ay ñoo xam ne ay exemple lañ dafay bàyyi ay royuwaay mm-hmm. dafa sàkk dafa euh, dafa dafa defar ndax nga nga nga Maxtaar Bintal Samba Mbakke sëñ Mouhamadul Moustapha mm-hmm. sëñ Mouhamadul Fadil mm-hmm. sëñ Amar Fall Mbakke sëñ Mor Roqe Bousso mm-hmm. sëñ Samba Assu Diop sëñ Cheikh Coro sëñ Balla Coro sëñ Modou Penda sëñ Modou Maxtaar Diop ñoo ñi nga xam ne mooy kàngam yoon ñooñu boo leen génne ci yoon bi dara du leen ngay raw ci yoon lampu <laughs> njàmbur sëñ ma sëñ <laughs> sëñ ma bañi sëñ ma bañi njaay <laughs> ñooñu ñooñu tabax bu njëkk ba ci mbir yi nga xam ne ñoom borom daal moo ti leen sëñ bi boole jàngal leen tërbiyee leen ñii sax mu sampal leen kër loolu mooy diir nga xam ne sëñ baa nga ci géej ga عبد الله العلوي وربنا بحاد المسكين رب المريدين واقرا البنين النجبان na juróom-ñaari at yi sëñ bi def ci géej gi mm-hmm. yar na fi tërbiyee na fi murit mm-hmm. te yëmut ci loolu jàngal na xam ne ñoo waroon a jàngi mm-hmm. def ñu war a jàng xam waat daa am muy wane waat moom da ni ko sëñ Tuubaa doon waxee moom ci biir sëñ Tuubaa moom daa daa daa nekk moom moom sëñ Tuubaa loolu lu am solo la loo xam ne sëñ Ahmadu lu ñu war a delloo si la léegi gis nañu sax moom kéemaan la gis nga ko loolu it ba tey wet la goo xam ni maanaam buñ ci duggoon man doyoon na waxtaan borom daal mu dafa seeyal boobu ci sëriñ borom daal mu dafa sëxat ci dara dinay wax ne yoon wi fii mu toll ak sëñ Tuubaa mii nu xam jébbal ko sëriñ bi mhm. mu nekk ci loxo mhm. séntuñu woon sax na lii lépp dana ci waaye mhm. topp na ci ñu ne ba agsi itam geesuwu ko geesuwu ko mooy ànd gi bi yàlla sëriñ bi sëriñ bi demee ci géej gi li mu def ci ay xeeti taxawaay yoo xam ne da ci faggu ak di ñaan ak sonn loolu ci bëgg sëriñ bi del ci te loolu lim yan bi mu ko yoraloon du tegeen dis gum dis ci moom. ndax mm. moom attan na ko te am na jomi. Mm. gàdd gàddu ko moom. Mm-hmm. waaye nag bëgg gi bëgg sëriñ bi. moo ko juraloon mm. bi mu fi jógee ñaari kaamil la fi bàyyi woon. Mm-hmm. da ko yokk ba muy ñeenti kaamil ñu koy jàng bu ne. Mm-hmm. di ñaan sëñ bi ñëw. allah ñu salaatantu na jinaa la ko sos. nga xam ne salaatu salaatu googu junni yoon lañ ko daan def par bis bis bu ne ngir ñaan sëñ bi ci hmm. yooyu yëpp di am solo yoo xamante ne hmm. day jot nag nit ñi xam ko hmm. ni borom daaru nag dafa am ay ay ay biri boppam yoo xamante ne da ko da ko da ko téyal Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala an man na boobu day duggaat rek ci li njëkk a wax ne docteur Moti moom maanaam yitteem mooy def ndigalu sëriñ séentu ci woon itam dara mooy da ko daa def ngir yàlla boo seetloo lii sëñ bi wax euh, mawlud bii nii sëñ borom sëñ bee ko digal mm-hmm. man jëpp ma jàpp naa ne sax sëñ bi digaloon na ko ñeneen mm-hmm. waaye fii ci daal moo di boo gisee ak kër lañ ko wutal goo xam ne mawlud la tudd moom mm-hmm. mawlud mooy gàmm xam nga maanaam kër goo xam ne dañ ko defar xalifa yi fi ne sëñ Cheikh Xadim moo ko mujj defar defar bu rafet wut nit teg fa ñu tuddee ko mawlud nga xam ne bërëb bi gàmm rek dañuy def bis bu ñu gàmm mhm. loolu moom ci adduna bépp moom fii rek la laa ko laa ko mas a gis wax dëgg mhm. mhm. ma ko feneen wax dëgg yàlla bërëb boo xam ne bu gàmm la tudd ñu di ci gàmm ay bis bu ne doogu googu nag maan ma maanaam maanaam lu rëy la ci borom daal te fi ne eh, ni mu ko defee ci loolu noonu la ko defee ci kaamil yooyu kaamil ba ñu ngi ko jàng fii ci béyti da am ko mm-hmm. salaatu am loolu nga wax salaatu la ci safar Mbàkke Baari mm-hmm. loolee bu ko sosoon ba nëgë ni mooy wéy dal ak salaatu yi waaw salaatu yi ak kaamil yi laa ko ni mm-hmm. kaamil yooyu mu loolu bis bu set ñu jàng ko ba tey jàng nañ ko salaatu du ràññi naa itam ginnaaw bu ñu sëlmalee euh, euh, euh, takkusaan def nañ mm-hmm. ko ci biir jumaa. boole koog itam di wane image bu rafet ci sëriñ bi. loolu lu am solo la. ne mm-hmm. tey bari ci mag ñi ñoo xam ne seenu dugg ci yoon ci moom la jaare mm-hmm. ci waxtaan yu waxtaan ak ñoom ak jëflante bu mu jëflante ñoom. ak tegtal bu mu leen tegtal sëriñ bi. ma euh, sëñ mbiri ak ku man sëñ ma ñaw seen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam sëñ ba sant ni wax na leen ci téere bi loolu mm-hmm. ba tey image bu rafet boobu lu am solo la mm-hmm. ne sëñ Moussa da koy nettali mm-hmm. mu xoromu lool nga xam ne mu ba mu fay nekk ci jafe-jafe fekk mu nekk situation bu doy waat ndax soxnaam sax dafa fay ndax boobu dem na ba nee na amul ci kaw suuf lu may benn mata maanaam muy 40 kilos yi pepp moom la am nee na borom daru matti war ko jox sa fukki mata oh. ca mooma at la ko jëlal soxnaam sa wodd ko may ko fas mu tuub fa saasa <laughs> nga xam ne boobu du woon ab jullit waaye <laughs> fa bi nga xam ne moom la borom dara matu jëlil boobu boobu loolu sancel sëñ bi ca mhm. ca mhm. ci yoon wi nag dafaa tekki rek ci bëccëg gi mhm. romb ko fekk ko ci jafe-jafe booba la sëñ bi yónni euh, sëñ Mor Absalo dem naa au mois de mai 1907 ñu ko demal wali ma Thierno daarul manaan bi muy dox ba ñëw ba woo borom daaru hmm. ña nga tase ji ak sëñ bi Louga hmm. bi ñu àndee nag jóge daaru manaan di di di wuy ji la jaar ci sëñ Dëri Kebe moom ko defal ko loolu <laughs> ba mu demee nag la ko sëriñ bi demal Jolof te seet barab bu tàlli bu nooyee nooy bu bari ndox te àlle nga sañ ci fag daaru la yaa di kiimaan te boo demee tuddee ko daaru rahmaan loolu lépp itam day dellu ci mhm. borom daaru moo te sëñ bi da koo seere seere ju am solo mooy ayyuhal masbuhu bi xubinaa mm. ndeysaan allahu akbar bi yow mi nga xam ne bëgg ma bu doonu paaka dañ la cee rendi mm. allahu akbar waaye foofu it eh, gis naa baat bi lu mat a seetlu mooy bi xubbinaa mm. bi xubbinaa moom mbooloo la wax bëgg bëgg bëgg nu

mu mu dem tudde ko boppam. Mm. bu ñu ñëwee sëñ bi ni ko ana ga nga koo ko tudde mu ni ko sama bopp. Mm-hmm. ndax ba mu lay topp sama bopp ndax borom daaru moom sëñ Tuubaa ni yéem naa ko ngir lu mu masa am man la ko jox. Mm-hmm. maa ko gënal boppam. Mm-hmm. borom daaru si newul sëñ Tuubaa yaa ma gënal sama bopp. parce que ki ñuy bëgg aji bëgg ñu ñuy bëgg moom moo xam ñu ko bëgg. yéen ñett ñii. ngeen ma bokkee bëgg. man maay xam yéen ñett ñi kan moomu ci gën a bëgg. ñi bëgg sëriñ Touba ñëpp mm. kenn la ñu bëgg muy sëñ Touba mm. sëñ Touba nag moo mën a xool ñi ko bëgg ñëpp kan moo ko ci gën a bëgg mm-hmm. borom Daaru Muxti wala fi dañuy wax ni sama bopp ma la gënal du bañ naa ko mm-hmm. mais sëñ Touba moom moo ni yéem naa ko ngir lu ma sa am man la ko jox mm-hmm. maa ko gënal boppam sëñ Touba moom moo ni Ceerno mii moom maa ko gënal boppam allah mooy dëppoo lii rek ayyuhal masbuuq min hubbina boo foofu di jàmm mooy boo gisee

borom daal moo di yàlla da ko xiir ci bëgg sëriñ bi waaye bëgg bëgg sëriñ bi itam ci la bëgg rasulullah ci la bëgg yonente bi gisee saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne sëñ bi moo ko daa joxu tur ci njëlbeen sëñ bi am yonente bi rek lay tudde xam ne njabootu yëpp yonente bi lañ tudd daal wax nañ ne ginnaaw sëñ bi eh, wala boog eh, moom moom ci biir njabootu borom daal moo gis nga ne gis saxaaba yi xulafaaw yëpp moom tudd na leen بن علي بدي المقدار زبير خالد بن الوليد صهيب الرومي <laughs> من يوحى لك نيكون بس بودال يفكي فنك جروم تيويرو شعبان بس ام الاسلام boo xam ne bi sallallahu da cee wax ne mm-hmm. bu ñëwee na ngeen di dundal guddi gi mm-hmm. di woor bëccëg ba mm-hmm. ndax suñu borom da ci jege nit ñi di wax ne ana ku bëgg ko jéggal ma jéggal ko ana ku bëgg wërsëg ma jox ko ko ana ku am i nattu ma teqali ko moom ana ku bëgg nangam ku noonu la koy toppoo nee ba jant bi sox am na beneen eh, net lii tam bu soxna ay sa wax ne suñu borom day xool bëtu yërmande jaam ñëpp

ci la suñu borom wëlbati xibla gi mhm. ñu jublu Kaaba ga Makkatal Mukarrama ba ñu jublu Baytul Mukarrama mhm. bis la boo xam ne itam bisub ñaan la bisub nangu ñaan la mhm. bis bu barkeel la bu rëy la am daraja la salaatu ala rasulillah itam ci jamono yooyu la wàccoon yonent bi itam lim ci daa woor mosu koo woor ci beneen weer guddi gi itam da ko dundal di ci julli mhm. di ci déeyaalee borom mhm. moo tax kon bisub nangu ñaan la boo xam ni ñëpp mën nañ ko waajal tey ren ji nag mu mu tolloo mhm. bis bi yonente bi ganewoon adduna ma bisu altine di biir pour seeti altine ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoon ren ji moom la dajale ñaan yàlla foofu am na lu am solo loo xam bëgg naa nga leeralaale ko bu ñu waxee bis mu ngi tàmbalee ci guddi gi mm-hmm. tàmbalee ci guddi ga ko jiitu mm-hmm. mm-hmm. waaye nag bu dee nisfu saxbaan nag am na ci borom xam yu wax ne ñaari guddi yëpp ci la ñuy macha allah nag ki jiitu ak ka ca topp macha allah alhamdulilah macha allah eh, jërëjëf sëñ Ahmadou kon xam naa dama lay bàyyi rek nga tàggoo nga tàggatuwaale <laughs> ñu ngi lay sant baax a baax di gërëm di la ñaanal sunu borom defal la jàmm ak tawfeex barkeb sëñ Touba jërëjëf sëñ ko sax maa ngi lay siyaar bu baax doolu mm-hmm. leen ndokkeel di ndokkeel sëñ Cheikh naa di suñu sant bu baax ci liggéey bi ni ko sëñ Bay waxee ñuy mm-hmm. ànd di leen ñaanal rek yàlla gën leen a nangul liggéey bi gën leen a bu ngeen cee defal ndimbal ba mm-hmm. fa ngeen bëgg àgg fépp ngeen àgg fa mm-hmm. sëñ mbay mi tam nu koy santaat bu baax a baax mm-hmm. di koo xam ni ni mu ko waxee ci borom daal moo te melaw woyof googu ak wàcc ba tolloog moom mhm. waaye moom suñuy waajur la daa àndal macha allah ñu ñaan yàlla taxaw ko mhm. liggéey yi mu tàmbali itam ci ay gëstu xam naa sëñ Koso waaw waaw kay maanaam tey mhm. daam nag loo doon waxtaane loo xam ne bëgg naa nga laal na ci tuuti ndax moom it ci borom daaru la <laughs> eh, mooy tey li nga doon waxtaane jëmm ju tedd jooju nga xam ne daa bokkoon ci njabootu borom daaru <laughs> ay atam bëriwul woon <laughs> waaye su ko defee nga nga nga nga ñëwal nu ci tuuti rek. Hmm. su ko defee ñu tàggatoo ko. <laughs> waaw euh, maanaam euh, maamam sëñ Cheikh Fatou Fall. Hmm. Hmm. borom daaru Mouti mi ngi ko tuddee sëriñ bi. waaye tudde gi mu ko tudde sëriñ bi. Euh, tax na mu bëggoon ko daa ko tofto maanaam daa ko tofloo. fu mu mas a jëm di ko yóbbaale. te loolu man jàpp naa ni. ndax Serigne Cheikh Khady bi mu eh, sëñ bi tam noonu la doon def. Mhm. ba ba mu koy yóbbu dara dana sëñ ma daaw balla da nga koy jël ba ma ba ma miis ko. Mhm. <laughs> doo ko yóbbu. sëñ Cheikh Khady Fall bi itam ak moom bay xam naa war a am juróom ñaar juróom-ñetti at mu dem njaareem sëñ bi laaj ko ni ko ndax dal na mu ni ko déedéet sëñ bi laaj àlluwa bindal ko ci dalal ko moom sëñ eh, Abibu Mbàkke imaam. Mhm. ñoom ñaar ñoom lañu ñu euh, euh, dalandoo mm-hmm. mu doonoon jëmm joo xamante ni bii mm-hmm. tab ga newoon ci borom dara muuti moom la doon na ci moom mm-hmm. euh, moom maamam mës la am ñaari mbubb waaye juróom en 1986 moom wax ni ma am na dëkkandoo bu ñu doon wax sëñ Gora Cissé dafa mujjoon ñaw am mbubb denc ko ndax sëñ Cheikh Fatou Fall mbubb mu sol bu daloo mu bees maye moomu sol bu <laughs> demee ba maye ñaari mbubb yëpp sëñ ko résisté ni ko am abal la mbubb yi ba ba ngay amaat mbubb ndax bu ko joxoon addee mu maye ko waaye nagam la ko ko abal du ko maye mm-hmm. eh, eh, nee na may itam bu ñu wasaanante xéewal yi day génn di xool ku mu bokkal ku ñëw xéwlu ci ba xéwal gi day set maanaam tab la woon boo xamante ni bii daal joxe aw ñam euh, ak ak ak joxe ay sët moom euh, daf ca ràññu ko woon lool lool lool lool mu mel nañ solo mooy bis ni la waaw euh, mu ngi fi bàyyi ko woon juróom ci Chaban mhm. doon le 27 mars 1957 mhm. mhm. tey la am juróom benn fukki at ñeent ba mu làqoo moom itam moo njëkk a fekki borom daarul mooti mhm. na nañoo wax ni euh, njabootu borom daarul mooti gi ñuy denc bëy ji ci moom la jaare walla ci bëgg gu euh, borom daaru mooti bëggoon Serigne Touba mhm. loolu moo ko waral mhm. ndax borom daaru bi fi jógee euh, sëñ sëñ Abdou Jamil moo ko njëkk a fekki mu njëkk a làqu ci njabootam gannaaw boroom daaru mooti kebe meer la ko defee waaye mu am tawfeex ñu indi ko daaru mooti dañ ko denc waaye sëñ Cheikh Fatou Fall bi mu làqoo sëñ moo daaw Balla moo ni bëgg gi ko borom daal moo ci bëggoon nañ ko denc fii ci wetam ndax mu di ko wettini kon eh, loola nañu wéyal ba léegi ku fi bàyyi ko ci eh, yal na fi gëj eh, foofee la ñu lay denc loolu mu ngi sosoo ci sëñ Cheikh Fatou Fall mu rëy ab juddu lool ndax sëñ Pir Yoro Sadio mooy way soxna Fatou Fall Mbolo mm-hmm. miy way sëñ Cheikh Fatou Fall soxna Fatou Fall Mbolo soxna Sadio Ba mooy waajuram mu jigéen bi fi euh, euh, sëñ euh, sëñ Pire. Mm. Nioro Sadio bàyyi ko. Mm. la dem ci ëttu Serigne Ndiassane. Mm. Serigne Ndiassane fa la nekk. Mm-hmm. ba sëñ bi dem Thièyeen Jolof mu tàgg ko ni ko damaa bëgg dem fekk sëriñ bi Thièyeen. Mm-hmm. ziyaare ko dénkaat ko sama njaboot. Mm-hmm. mu jox ko ci diggal ba mu demee ziyaare sëriñ bi dénkaat ko ak njabootam. yeesalub ziyaaram ci suba sa la wàcc ab liggéey. ñu denc ko fa soxna Fatou Issa Diop. macha allah ca kër sëñ Tuubaa googee di Daaru Rahmaan. macha allah <laughs> jërëjëf eh, matale na ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm sa mbokk mu.